réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les Patriotes TV. jaa ngeen jëf am saa su di ànd ak yéen ci li nga xamante moo di karawaan Ousmane Sonko ak li nga xamante moo di pasir président Bassirou Diomaye Faye ñu dooree bi nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko bi moom moomee na ginnaaw bi nga xamante jógee na foofu see kay dugg jamono ji nag mu ngi toll fi nga xamante ni moo di sa Kousanaar Kousanaar nag nekk ci. bokk ci région de Tamba département de Tamba waaw moom moomee de Koussanar nag arrondissement la fi nga xamante ni moo ci région bu Tambacounda mën nañ ne yoon boobee nag moo nekk yoon bi nga xamante ni fa la Ousmane Sonko war a jaar pour dem fi nga xamante ni nag moo di région de Kaffrine région de Kaffrine googee nag mën nañ ne depuis démb ba léegi ñu ngi koy xaar waaye teg guñ ko ku nekk xam ne nag yoon Ousmane Sonko bi nekk na yoon boo xamante ni gaawul benn yoon ndax fu mu jaar fu ne koy dar comme il faut ñu dem fi nga xamante ni moo di cortège bu Bassirou Diomaye Faye jamono ji ñuy àdd ngeen di teewlu tembe mu ngi fi nga xamante ni moo di Fatick gannaaw bi mu jaaree foofu ne Passy jógee Passy jaaree fi nga xamante moo di Foundiougne kon nag jamono ji tembe mu ngi foofu noonu sa région bu Fatick foofee nag mën nañ ne bu fa duggee nag du fa gaaw a génne ndax mbokk séeréer yi nag fa la ñu nekk ndax nag séeréer yi ku nekk xam na leen si bëgg seeni mbokk ku nekk xam ne si bëgg nit kon nag si Diomaye Faye dafa naa ne bu duggee foofu noonu nag xëy na nag yaakaar naa ne dina fa jaare pour dem fi nga xamante ni moo di dëkkam boobu di Ndiaga Niaw